dañ koy xalaat ah xoolal ngeen taxaw rek kii mooy gën a wóole yow maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi ci kaw moom compliqué na. kaw na mais est-ce que nii lay mel. bu ñu ko defawal. nii lay mel est-ce que. Macky ñëw na. Macky Macky. Macky Macky.